ak lan mooy al muamalat ñu jàng ak yéen démbit ñeenti taqale yi gën a am solo yii taqale ibaadaat ak muamalat xanaa bon duñ def lu dul sóobu ci bi gën a am solo bokk ndax borom bee ko moom te moo di al ibadat cik farañ fàcce mu mel na bu ñu delloo ci ponki lislaam yi juróom muy shahadataan ñaari baati seede yi muy julli muy azaka muy koor muy xaj dañuy foog dañuy fekk ni bi ci gën a am solo gannaaw ñaari baati seede yi mooy julli julli googu yonentu sallallahu alayhi wa wax na ne moo dox ci diggante jullit ak kéeféer wax na ne mooy téeg mooy kenu gi xenu diine itam wax na ne moom lañuy ñuy njëkk laaj jaam bi yowmal qiyaam mitam wax na ne su julli baaxee ñu nangu ko jëf ya ca topp yëpp dafay baax ñu nangu leen bu ñu rejeté julli duñ xool sax beneen jëf yal yàlla boole musal julli moom nag bi nga xamee ne moo gën a am solo gannaaw bu nit ki duggee ci diine moom lañu war a njëkk jàngale bon waaye kom julli du wér lu dul yë jiitu te yë ko jiitu ba ca gën a am solo mooy ak laab boroom xam-xam yi baaxoo ci téere fiqhi buntab laab lañuy ñuy njëkkee la ñuy njëkk a jàngale ndax laab ni ko yonentu sallallahu alayhi wa sallam waxee mooy caabi julli alsalaatu eh, miftaaxu salaati miftaaxu salaati altuhuur loolu la yonentu bi wax sallallahu alayhi wa sallam caabi julli mooy ak laab laab nag ñaari xaaj la laab ci toj ak laab ci sobe ana luy laab ci toj laab ci toj mooy jàpp ci ki nga xam ne toj le na wala tiim ci ki nga xam ne toj la na waaye mënta jëfandikoo ndox wala sangu farata ci ki nga xam ne toj la na toj gu mag moo xam janaba la moo xam mbërëg la moo xam deretu wasin la ak yu mel noonu loolooy laab ci toj ak laab ci sobe laab ci sobe mooy yow miy julli yére bi ngay jullee yow miy julli barab bi ngay jullee yow miy julli sa jëmm ci boppam laab ci sobe sa jëmm war naa laab ci sobe sa yére war naa laab ci sobe barab bi ngay jullee war laab ci sobe ngir nga mën a julli kon ñaari façon ngi laab yile ñoo xam ñoom nag duñ mën a amee lu dul ci ndox walla lu taxaw taxawaayu ndox laab googu nag yonentu sallallahu alayhi wa ne mooy caabi julli mu mel ni toj ak sobe xomb la gu tëj aji julli ji bu laab ñëwee ubbi ko borom mën a julli laab ci luxa ci luxa al arabiya bu ñu waxee ak tahaaratu mooy firi ak cet ci tilim moo xam tilim buñ yëg la wala tilimu maanaa la mooy tilim boo xam ne bu yëgut la tilim bu yëg mooy tilim bu ne ci yaram tilimu maanaa mu mel ni ab yéeféer innamal mushrikoona najis kéeféer sobe la tilim la wala innamal xamru wal maysiru wal ansaabu wal azlaamu rijis rijsum min amali cheytaan xam nga ne bant yooyu boo leen laalee it du tax nga taq sobe waaye lañ leen di jaamu ak lañ leen di wuure moo tax ñu tuddee leen sobe kon laab mooy set ci bépp tilim boo xam tilimu biti la wala tilimu biir bu dee ci sharia nag laab mooy irtifaaul xadathi wa zawaalu najasi yëgatik toj ak dëñuk sobe yëgatikuk toj nag du amee lu dul ci ndox walla lu wara taxaw walla lu mën a taxaw taxawaayu ndox ànd ak yéene ñu war a yëgati toj googu ci yaram wi yépp su fekkee ne toj gu mag la sangu farata walla ñu yëgati ko ci ay cër bu fekkee toj gu ndaw la cëri njàpp yi ñoom la ñoo raxas ñu yëgati ko walla jëfandikoo luy wuutu ndox ndégam ndox amut walla ñu lottu ci jëfandikoo ndox looloy suuf gi nga xam ne aji lottu ji jëfandikoo ndox walla aja aji ñàkk ji ndox moom lay jëfandikoo pour tiim kon ndox moomu nga xam ne nag laab du amee lu dul ci moom war na ñoo xam ay xaajam war xamit ay atteem war nañoo xam ay xaajam mooy lan moy façon ngi ndox yi am ya ca mën a taxaw laabal mukallaf mi ak ya nga xam ne mënuñoo laabal mukallaf mi dinañ fekk ne ndox am na ay xaaj xaaj bu njëkk bi moom la ñoo tuddee alma al mutlaqu mooy ndox mu ñu boyal ñu koy taarifal ci fiqh ne huwa almaau alladi ala sifatihi allati xuliqa alayha ndox moo xam ne ma nga des ca melow nga ko yàlla bindee ndox moomu ci sharia luy atteem tahuur ana luy tahuur mooy taahirun fi nafsihi mutahirun li gayrihi ndox la moo xam ne laab na ci boppam mën naa laabal lu dul moom ndox mi laab na bu la neexee sangu ca bu la neexee naan ca bu la neexee it jàpp ca mën nañ koo jëfandikoo ci jaamu yàlla mën nañ koo jëfandikoo ci aada loolu nag mi ngi dëggu ci bépp ndox moo xam ne mën nañ koo tuddee maa u mutlaq ana nuñ koy xamee dañuy dellu ca alquran mu wax ñu ko ñu dellu ci sunna yonantu sallallahu alayhi mu wax ñu ko ndax maa u mutlaq bu ñu ne mooy ndox mu des ca meloom dana ami saa ndox ma soppeeku walla ndox ma am neneen nu mel waaye dafay yore atte mutlaq buñ demee ci dina ñu wax xeetu ndox yi ñu mën a tuddee almaaul mutlaq bu ñu demee ci sunna it danañu wax xeetu ndox yi ñu mën a tuddee almaaul mutlaq alquran wax nañu ne bokk na ci xeeti ndox yi nga xam ne laab nañ mën a laabal maaul matari wa thalji wal barad ndoxam taw galaas ak ndox mu sedd ana lu ci ay tegtal sama borom tabaraka wa taala dana wax وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به suratul anfal laaye fukk ak benn ne mooy wàccee ndox mu jógee ci asamaan ngir mu laabalee ci loolay ndoxum taw mu waxaat tamit ci suratul furqaan aaya 48 wa anzalna min alsamaai maan tahura moo wàccee ci asamaan ndox moo xam ne laabalaa koon la bu ci sunna danañ fekk ci xadiisu buxaari ak muslim yonentu sallallahu alayhi wa di ñaan allahumma agsilni min xataayaaya ji walthalji walbarad yàlla yal na nga raxas sama ñaawteef yi te raxasee ko ndox raxasee ko glace raxasee ko ndox mu sedd ñu xam ne kon ndox bu dee bu sedd la bu dee glace la bu dee ndoxu taw la yëpp laab na mën naa laabal mën nañoo jooyal ci xeetu ndox yooyu almaa almutlaq ñaareel ba maa ul baxar tudd nañ ndox moo xam mu sedd moo xam mu glacé ñaareel ba maa ul baxar ndoxam géej wa maa ul nahar ak ndoxam dex ndax dex moo géej ñoo yem li ciy tegtal yonentu sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallama dana wax ci xadis joo xam ne mi ngi ci abu daawuda mi ngi ci tirmidiyu mi ngi ci nasaiyu mi ngi ci ibnu majata ne ndoxam géej huwa tahuuru huwa tahuuru maauhu maytatuhu mu ne huwa moom géej ab tahuuru mooy laabaakoon maa uhoo ndoxam alxillu mooy aji dagan maytatuhu méddam géej ndoxam dara mënu sobeel méddamit laab na dagan naa lekk ñetteel ba maa ul wal uyun ndoxu teen sew ndey lu ciy tegtal sama borom tabaraka wa taala moo wax ci suuratu zumari ne alam tara أن الله أنزل من السماء ماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض xanaa xamuloo ne yàlla wàccee am ndox mu jógee ci asamaan mu daldi ko suub muy ay yolnde ci suuf ñu xam ne ndoxu yolnde yi cosaanam kat mooy ndoxam asamaan kii taw moo tax yonentu sallallahu alayhi wa sallam ba muy mellal eh, ndoxu budaata teen la mu ne inna al maa tahurun laa yunajjisuhu ndox mi laabaakoon la dara mënu koo sobel xadis ji mi ngi ci ahmadu ngi ci abu daawuda mi ngi ci tirmidi mu rafetal ko yonentu sallallahu alayhi wa ba mu demee ca teenu zam-zam wax na ne nañ ko indil tànqukaay wala nañ ko indil baag ci ndoxam zam-zam bañ ko indee mu naan ca jàppu ca ñu xam ne ko teen ak sewnde wér na ci alquran ak sunna ne ndoxum mutlaq lañ laab nañu mën nañoo laabal ñeenteel ba ci ñu mën a woowee almaaul mutlaqu muy ndox moo xam ne dara jaxasoowut ak moom ñu ne almaaul aajinu ay almutagayiru bi tuulil mukthi ndox moo xam ne yàgg fam ne moo ko soppi waaye dara jaxasoowut ak moom tax mu soppeeku waaye daal fi mu ne yàgg na fa yàgg ga tax mu soppeeku bay xeeñ walla mu soppeeku ci couleur ngeen baal ma ndax yàggaay ndox mooma dañ koy boole ci xeeti ndox yi laab ndox moomu ndox mu laab la boroom xam-xam yi dëppoo nañ ci loolu borom ibnu ashir dana wax ne faslun wa taxsulu tahaaratu bima min altaxayuri bi cheyin salima ida taxayara bi najisin turixa aw tahirin li aadatin qad saluxa illa ida laazamahu fi lgaalibi ka mugratin fa mutlaqun kadhaibi jumhurul fuqaha yi danañ gis ne ndox a ngi ñu tàngal ko ci suufu jant bi bam tàng li ëpp ci fuqaha yi dañ koy yéegal ci ndoxu mutlaq xilaafan li shafii imam shafii moom nee na wala akrahu lmushammasa illa min jihati tibbi nee na wàllu médecine daal la tax ma sib ko waaye li ëpp ci fuqahaaw yi gisuñ ca benn problème beneen masala jumhurul fuqahaa yi dañu gis ne amul benn problème ci laaboo ndox mu ñu tàngal maanaam set set set ca walla dindi ca sobe xam nga waxoon nañ ndox mu sedd ndax alxuraan a ko tudd waxoon nañu ndox mu sedd ndax sunnaa ko tudd waaye ndox mu ñu tàngal nag boroom xam-xam yi am ca wuute waaye li ëpp ci ñoom amuñu ca problème moo xam lu laab lañ ko tàngalee walla dañ koo teg ci tàng foo xam ne sobe la bam tàng ndax dëkkaale du rekki ak laab danañ ca dikk ñetteelu masala bi mooy ndox moo xam ne la ko soppi lu laab la soppi na meloom soppi na xetam walla soppi na cafkaam waaye la tax mu soppi ko dafa di lu tiis lu jafe ñu wëttu ndox ma ca loola niki ndox moo xam ne dafa sax ci barab bi garab xobi garab yi di ci wadd saa yu ngelaw uppee xobi garab yi wadd ndox ma soppeekoo ca loola ñu ne ndox moomu neexuta protéger neexut a wëttu naaw nag yëf yi saa yu yombee saa yu jafee yomb al mashaqqatu tajlibu taysira ñu dugal ko foofa ñu ne ndox moomu tamit kenn du ne dafa sobe li ëpp ci borom xam-xam yi wala kenn du ne eh, laab ga dafay rekkee ko ngeen baal ma ci baatu sobe bi ma tudd ndax sobe ak laab mën a laabal eh, duñ benn te dinañ ci ñëw ci ay détails ci gàttal daal mbokk yi xaaj bi njëkk ci xaaju ndox yi mooy almaaul mutlaqu mooy ndox moo xam ne ma nga des ca nañ ko bindee woon noonu lañ koy taarifee li atte mooy laab na mën naa laabal maanaam laaba la lii cosaan ci lii nag mooy lépp loo xam ne turu ndox mën nañ ko woowee ndox rek dafay dugg ca loola lu tax falam ji ma an fa tayammamu bu ñu xoolee nag xeeti maa u mutlaq danañ gis ne alquran ak sunna tudd nañ ay xeet ci xeet yooyu ñu mën koo tegtaloo ba ne yii daal saa yuñ ko gisee ci anami ndox yi le ci xeeti ndox yi le nañ xam ne ndox la muñ mën a jëfandikoo ci laab ndox la it muñ mën a jëfandikoo ci aada bi alquran njëkk a tudd wala bi ñuy njëkk tudd ci alquran tudd mooy maaul matari ndoxam taw ndoxam galaas ak ndox mu sedd ndax aayaat yi nga xam ne ñoom lañ wax buñ demee ci xadiis ñu fekk fa mu tudd ndox tudd galaas tudd sedd mina bil maa i wa thalji wal barat ñaareel ba mooy ndoxum géej ak ndoxum dex ñetteel ba ndoxi teen ak sewnde yi ñeenteel bi ndox moo xam ne yàgg gum yàgg moo tax mu soppeeku ay masala yi nga xam ne ñoom lañ indi benn ñaar ñett benn ba mooy li ëpp ci boroom xam-xam yi si ndox moo xam ne dafa tàng dañ koo jantal dañ ko teg ci suufu jant bi bam bam tàng ñaareelu masala bi jumhurul ulama yi si buñu ndox moo xam ne dañ koo tàngal moo xam safara walla lañ ko teg bam tàng lu sobe la wala sobewut ñetteelu masala mi mooy boroom xam-xam yi li ëpp ci ñoom dañoo gis ne ndox daal bu fekkee la ko soppi dafa jafe ñu tàqale ko moom dafa jafe ñu wattu ko ci moom lu mel ni ndox mu dëkk ay garab saa yu ngelaw xuppee xob yi di ca daanu ndox moom it dafay dugg ci ndoxum mutlaq moy ndox la moo xam ne taahirun mutahirun wala tahuurun bu soobee yàlla suba dinañ jàng ak yéen alqismu haani mooy alma al mustaamalu fi tahaarati ñu ngi jaajëfal ñi ñuy déglu yëpp di ndokkeel suñu mbokk communauté murit bi nekk fii ci Amérique ak ci àdduna bi yëpp ñu ngi nii ci yoon jógee New Jersey tabaarakallahu ñu santoon ñu ñu waxtaan ci dundu Cheikh Ahmed Bamba bi ci rawatina ci lakku angale ndax ndaw yi nga xam ne ñoo juddoo fii ak mbokk yi ñëw ci programme te duñu goreel làkku wolof ñu amoon mbégte amoon honneur lool ànd kook ñoom di ci eh, jiital suñu sanse président El njaay ak Adja eh, naka la Eh, tuddati sama xarit ba moo ma njëkk a toggal ceeb kat eh, Bronx ndeysaan Adja Ndey Kumba Mbuub macha allah léegi waa New Jersey la ak borom këram Serigne Mansour macha allah ak suñu eh, siste yi nga xam ne ñoo fa nekk toppatoo gan yi ñoom soxna Ulay soxna Nabu tabaarakallahu ak ñi ñu àndal yëpp ci daayira bi góor ak jigéen Serigne Moussa. macha allah ak daayira Tijaan beeg seen présence euh, présidente Ndourin ak macha allah ñu fa teewoon ñëpp ak suñu xaritu bopp Chérif Mouhamadou Lamine euh, Haydara jóge moom it ba Rhode Island euh, ak imam Moustapha Diop suñu suñu suñu tonton isaan macha allah di gërëm ñi nga xam ne ñu ngi jàpp ci liggéey bi yëpp rawatina suñu administrateur yi sama doom Mouhamadou Lamine Mouhamadou Lamine Dramé ak euh, suñu soppe sidi Mouhamadul Muxtaar Diop euh, fii ci zawiye bu euh, New York bi ak suñu suñu naka la tuddati xawma dañ koy tuddee suñu manager wala suñu suñu assistant muy soxna jële nga xam ne tabaarakallaahu lu nekk rek mu ngi koy def ci ICFA pour mu dox koy ñaanal yàlla taxawu ko defaral ko zaahiram defaral ko baatinam ci barke yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama hada wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh علي ملاذ الناس في دين ودنيا بذول دون من بالنوالي شجاع في اختياد